lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko ko lislaamaa ngi suux suux jugleen suuxat ko ni yàllay sa buur doo sàkku ngaramam yooneen samad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 yéen mbokk yi topp seen sit internet muslih tv point com seen mbokkam daara Alioune Cissé mooy am mbégte di del si di leen nuyu te di leen ziyaara a di del si ci yéen liggéey bi seen émission bi ñu tuddee xam sa diine a dayoo war na nag ñi ànd nag yéen ci téere bi ñu tuddee al axdari fi al ibadat ala mazhabi imaamu malik dayoo war na ñu leen yéen ñeenti dar ci téere bi tey ñu war a ñëw ak yéen ci juróomeelu dar ci téere bi borom téere bi nag duñ fiy mujj borom téere mi ngi doon jàngal jikko yi nga xam ne dafa xaraam cib jullit mu di ko jikkowoo ci yooyu la nekk nag ñun ba tey ci yooyu la ñuy continuer jeexagutoon ñu ngi taxawoon suñu darsi bu mujj mi ngi waxoon ne wal hamzu wal lamzu wal abasu kon tey suñu darsi tey mi ngi war a commencé was suxriyatu kon nee dafa xaraam cib jullit muy jëw moo xam ci bët la moo xam mi koy jëwee ci làmmiñ waaye nag kon waxoon na la tamit ne foo dafa xaraam ba mu des ñett yi nga xam ne moom la setteeloon kon tey mi ngi ñëw a commencé mi ngi ne was suxriyatu reetaan reetaan mooy di ree nit ki amaana bëñ yaa ngi ree mais li sax biir xol nekkul ree maanaam ak ñaawal lay doon loolu dafa xaraam di reetaan nit ki ngir xeebeel wala ngir jéppeel dafa xaraam waaye naka noonu wa zina ak njaalo dafa xaraam moom tamit yaatu lool moom tamit tey moom njaalo bokk ci bàkkaar yi boni moom tamit nga xam ne sax yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ne yamal xiyaama biir safara ba fa jaam yi nekkee dañuy togg benn jamono xet gu naqaree naqaree xet gu bona bon xeñ waa safara waa safara di muslu ci xet goog ndekete xet goog mooy awra yi njaalaykat yi moom la ñuy lakk mooy xet xet mooy xet gu bon googu te njaala tamit bokk ci bàkkaar yi bon yi ba tax yént yàlla Muhammad ne na njaala moom ah ay bàkkaar mi ngi koy xaar bokk na ci àdduna rek dafay gàttal dafay ñàkk wàññi wërsëg waaye naka noonu dafay gàttal fan waaye naka noonu tamit ah, dafay waral demuk leeru kanam sa kanam leer du am benn leer moom njaalokat bi ñetti yeer ci des nag bu yama xiyaamee mooy dugg safara ak sax faag yu ni mel ak njëppital yàlla kon njaaloo ngi noonu bokk lu nekk lu bon a bon te yaatu lool léegi waaye naka noonu wan nazaru ak xool ilal ajnabiyati ci jàmbur bu jigéen koo xam ne takkoo ko du sa mag du sa rakk nga xool yenn bët yi dafa xaram jàmbur bi kenn xooluloowu la ko waaye naka noonu wata lazzasu ak di bànneexu bi kalaamiha ci ay waxam ak di bànneexu ci ndaw soo xam ne takkoo ko du sa mag du sa rakk di bànneexu ci waxam dafa xaraam moo xam nga ne kii moom ak mu may génn te demu leen fenn wala naka noonu boo comme lii ñi nga xam ne dafay faral di am guddi commencé une heure du matin jëm 6 heures loolu xam ne ko nar wax jàmm yaakaar naa doo wax heure boobu di koo xam ne takku ko takku la nag nga fanaanee wax moom guddi gi yëpp te takku la dag li muy ngay dégg ci moom ci ay kaddu daganu ci yow ndax ay kaddoom dafa xaraam ci xaraam ci yow góor gi ndax moom kàddoo moom jigéen awra la watum laa na ngeen fanaanoo wax yoo xam ne yu ñor ak yu ñorut ligne bu commencé une heure du jëm ba ay 6 xam ne loolu du li ñëpp jàmm defar lu baax def lu baax taxu koo jug kon dafa xaraam ngay bànneexu ci kàddu ndaw soo xam ne takkoo ko ba tey sax dañ koy gis ci marché bi gis góor goo xam ne jigéen ngay jaay bagage amaana mu ngi ay bagage di wër góor ga bagage yi muy jënd ci moom amaana soxlawu na ko mi ngi góorgóorlu di jaay rek mu jàpp ne kii fi mu mu yor amut valeur rek moom ci la bëgg a bay toog di waxtaan ak moom di jënd bagage yi amaana la muy jënd sa soxlawu ko ndax bu ko góor doon jaay amaana du ko jënd waaye moom soxlawut bagage yi waaye ki yor bagage yi la soxla yooyu yëpp da nga koy gis léegi ci jamono te jigéen goo takkoot ay kàddoom dafa xaram ci yow kon daganul ngay bànneexu ci ay kàddoom waaye naka noonu wa akalu amwaali naasi ak lekk alalu nit ñi bi xayri tiibin naf si lu seen teeg bakkan di lekk alalu nit ñi si loo xam ne neexu leen tayuñ ko gënalu leen masalan tey ah waa ji mairie moo ko teg dañ ko fay teg ci mairie bi ku ñëwut ci kayit juddu boo ñëwee 200 francs nga war a joxe waaye boo ñëwee tey dan la dawloo suba ginnaaw suba man nga ci def un mois di ko ko topp te xam nga ne heure boo ñëwee da nga bàyyi sa liggéey nga dem ba sonn ci loolu te kii tey boo lambee sa poche jox ko 5000 mu jox la kayit gi waaye li nga defut dara moo tax nangu la kaa jox loolu jaaduwut yow mi nga xam ne nag dagg nga une semaine di ñëw di ñëw boo ñëwee naa la suba ginnaaw suba ba mujj nga làmb sa poche jox ko 5000 pour mu jox la ko boobaa moom mooy yenu bàkkaar bi boobaa moom ma toog ci 16 ba mooy yenn bàkkaar bi ndax dañ ko faa teg te mii leen koy fay kon moom këyit gi waru ci teg benn intérêt wala nga ñëw mu lay daw la ba tax ngay làmb sa poos di ko jox mu di la ko jox loolu nekk loo xam ne lu bon a bon na te léegi noonu la noonu la jaatoo léegi Sénégal gu ngonte ya ngay dagg dem di ko lijjanti ndax nga jot ci moo tax bu ñu la ko waxee rek da ngay di tiit kon mi ngi noonu daganul ngay lekk alal nit ki daal ci loo xam ne neexu ko gënalu ko waaye naka noonu mu ne wal aklu ak lekk ah bi shafaa ci ràmm di lekk alal ci ràmm amaana yow autorité nga amaana yow kilifa diini nga amaana nga yow ku siiw nga ah am na koo xam ne amaana war naa jëfalanteeg yoon police am naa ak moom yoon ñi ngi koy woo muy dem ak dikk mu dikk ci yow pour nga defal intervention pour ñu baal ko wala lañ ko war na tëj wàññeeku waaye yow yemoo ci da ne ko balaa ma laa defal intervention da may fay nangam da nga may fay nangam te yow xamoo ne ndombal tànk bi nga am wala dara ji nga am defuloo yàlla lu tax mu jox la ko waaye moom mi ñëw ñaan ci yow nga dimbale ko tamit defut yàlla lu tax mu xañ la ko waaye yemoo ci loolu nag muy ñëw nga ci laaj ay intérêt loolu nekk xam ne lu bon a bon la moom tamit te léegi tamit noonu lay amee ci jamono nit ki daanaka dara ji jum la ëppalee rek boo ñëwee dana la ko wan kon bokk ci bàkkaar yi bon yi moom tamit waaye nekk noonu aw bi diini wala dundee diine dundee diine maam tabax jàkk yoo xam ne du yegg mukk di laaj rek jàkk yoo xam ne ba nga juddoo nga fekk ñu koy yelwaanal ba tey ñu ngi koy yelwaanal loolu kañ yegg kenn xamut tabax jàkk yoo xam ne du yegg daal di laaj ngir diine te yow dundaloo diine loolu bokk ci bàkkaar yi bon yi moom te léegi tamit noonu la yaatoo moom tamit waaye naka noonu wa taxiru salaati ak yéexee julli an awqaatiha ba waxtu wa passé di yéexee julli ba waxtu wa passé loolu tamit bokk ci bàkkaar yi nga xam ne bàkkaar yi bon a la moom tamit tax borom bi moo ne inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquuta borom bi mooy wax ne moom julli de moo ko wutal ay waxtu waxtu yoo xam ne ci leen ko war di jooxee moom julli waaye bul def la neex nga koy defee loolu baaxul ndax ba tey borom bi mi ngi wax ci soo suur suuratul maawuna ci saari suufe yi nga dégg mu ne fa waylun lil musallina xur wa ca safara ñeel na ñi nga xam ne dañuy julli mooy ñi nga xam ne allazina hum an salatihim saahuun mooy ñi nga xam ne dañuy sàggane seen i julli duñ ko def ca waxtu wala nu leen neex lañ koy defee borom bi nee na ñooñ xur wa ca safara mi ngi leen xaar ëllëg nekk loo xam ne lu bon a bon la moom tamit ah, sàgganee julli ba tax yonent yàlla Muhammad sax mi ngi wax ne man jamaa bayna salatayn min xayri uzrin faqad ata baban aziman min abwabil kabair képp koo xam ne da ngaa boole ñaari julli te yaa ko tey maanaam tisbaar ak takkusaan amul benn ngant bu ko waral wala timis ak gee benn ngant waralu ko yaa ko def rek ngir sa sàggan wala sa tayeef nee na xamal ne yow bàkkaar bu rëy a rëy dikkee nga bàkkaar bu rëy a rëy loo nga xam ne lu bon a bon la moom sàgganee julli waxuma ne ki ko moom carrément ki koy sagganee rek koog koog moom mbugal mu rëy mbugal mu méttee mi ngi koy xaar kon nag sàkkaa moom ki ko bàyyi boobaa taxul ñuy wax ndax yent yàlla Muhammad day wax ne julli mooy in ahda alladi baynana wa baynahum assalaat faman tarakaha faqad kafara nee na li séparé jullit ak yéeféer mooy julli yente yàlla Muhammad ne képp ku bàyyi julli rek ah, yéeféer nga képp ku bàyyi julli yéeféer nga hmm. mu ne ba tey wala yaxil du dagan lahu ñeel mukallaf suxbatul faasixi muy ànd ak ab saay-saay waaye wala mujaalisatahu bul toog ak moom li xayri darurati ci loolu lu mënta ñàkk ne daganu ci jullit bi tamit muy ànd ak ab saay-saay buy ànd ak nit ki ba yëg ne kii dafay toggoo di jëf bakkaari yu mag yi wala kii ab naankatu sàngara la wala kii dafay jaay li ñuy tere wala jigéen gi day jaay boppam wala xeeti jikko yu ñaaw yi moom mi ngi koy toggoo di ko def boo ko xamee ci moom nee na daga daganu tuut ngay toog ak moom ci loolu lu mun mënta ñàkk bu nekk sa xarit ndax waxoon na Seydina Ali ibnu Abi Talib waxoon na ne waxtar xarinaka wastafihi tafaaquran inna al xarina ila al muxaarani iyun sabo nee na ki ngay tànn ko bu baax mu nekk koo xam ne danga koy puukaroo foo toll ndax bàyyi la xel ne nit ku nekk ka ngay àndat ah nam mel rek loolu la ñuy jàppee ne yow tamit noonu nga mel moo tax xarit dañ koy tànn bu baax a baax ndax masalan tey yow mi nga xam ne yaa ngi koo xam ne dafay jaay dorog nga dem ci këram di ko waxtaanal fal yàlla dogal police ñëw di ko jël si far fekk la fa waaw bu ñëwee da lay buubaale yóbbu moo xam balaa ñoo xam ndax bokk nga ci wala bokkoo ci moom il faut nga dem ba police kon mi ngi noonu xarit dañ koy tànn te ànd ak ku baax mooy li am solo ndax yéen yàlla Muhammad joxoon nañu misaal ki ànd ki baax mooy ki nga xam ne yaa ngi ànd ak jaay yaa ngi nekk ak jaaykati parfum bi nga dem seeti ko ci place am bu toogee mën naa mu natt ba si yàgg na la mosal bii neex na de nga def sa yére wala sax bu la mosal mën na di natt rek mu tuur sa kaw sa boobaa li nga dend ak moom moo ko waral waaye mi ànd ak ah, ku bon ki nga dem ànd ak tëgg bi nga xam ne mi ngi ci mbaaram masalan moom amaana safara samay jëfandikoo mën naa ah, def ferñeent ñëw lakk sa yére wala naka noonu bu loolu amul xeetu weñ gaa xeeti lakk yooyu mën na ñëw xeñal la tamit ba foo dem dem nga ànd ak xet gu naqari kon daal xarit dañ koy ànd dañ koy tànn di ànd ak xarit yu baax waaye naka noonu mu ne loo ci man mënoo ci dara waaye da ngaa dugg ci oto bi nga paas mu paas loolu mënoo ci ci dara loolu taxul ñuy wax waaye li ñuy bañ daal mooy bu nekk sa xarit bul di àndate ak moom boo xamee ne mi ngi def bàkkaar yi mag yooyu bàkkaar ñaaw yooyu léegi yow arrêtal sa tànk ci moom nga xam fa nga yem ak moom bu baax bañ di jaxasoog moom lu bëri nga xam ne kon boobaa mën na laa yóbbee amaana mën na laa bañ a ah, yàq waaye daal nga bàyyi ko mooy li gën boobaa ndakam xam nga ne moom mi ngi toggoo jëf yi ñaaw yi nekk loo xam ne lu mat a bàyyi xel la moom tamit di xool bu baax ki ñuy àndan mooy xel ndax alquran dana al aqillahu yawma izin baaduhum li baadin aduwun ila almuttaqin nee na xarit yi ñi ànd ñëpp bu yamal xiyaamee ay noonu la ñuy doon ah dañuy bañante di móoruwante di rëbbante ah, waaye nag ba mu des ñi nga xam ne ñoo ànd ci ci ci ragal yàlla ñun daal nga xam ne ñoom bu yamal xiyaamee seen ànd day continuer fekk ragal yàlla ak la doon waaye ki ànd koo xam ne warta war a ànd ak moom bu yamal xiyaamee boo xuma diw ngeen di mujj te boobaa nag ah, rëccu day fekk jëf wees kon xam naa kon ñu ngi doy loolu ñëw jaaraat ci darsi bi jaar bu gaaw mu ne waaye dafay xaraam ci mukallaf mu ne wa suxriyatu reetaan nit ki ngir xeebeel waaye naka noonu wa zina ak njaalo dafa xaraam waaye naka noonu wa nazaru ak xool ilal ajnabiyati ci jàmbur bu jigéen di ko xool xool di ko xool daganut waaye naka noonu wata lazzasu ak di banneexu bi kalaamiha ci ay waxam moo xam téléphone la moo xam jàkkaarloo la dafa xaraam wa aklu ak lekk mu ne am waalu naas alalu nit ñi bi xayri tiibi nafsi lu seen teey bakkan maanaam li lay joxe alal ji nii maanaam gënalu la mais doo ñàkk pexe moo tax ñu jox la ko te yaa waral loolu tamit boobaa dafa xaraam ak lekk bi shafaa ci rammu ah mooy war a def intervention di ci laaj alal loolu daganut waaye naka noonu aw bi diini wala dundee diine tabax jàkk yu du yegg mukk loolu tamit daganut waaye naka noonu wa taaxiru salaati ak yéexee julli an awqaatiha ba waxtu wa passé loolu tamit daganut naka noonu walaa yaxelu du dagan lahu ñeel mukallaf suxbatul faasiq mi ànd ak ab saay-saay waaye walaa mujaalisatahu bu mu toog ak moom li xayri darurati ci lu lu mënta ñàkk xam naa kon ñi ngi wàcce foofu suñu kàddu di wax ne ñi ngi yi nga xam ne ñi ngi topp seen site mouslih tv point com di am mbégte lool ci topp gi ngeen ñu topp te di leen jaajëfal waaye naka noonu tamit di leen soññ ngeen wéy di abonné ci site bi di wax ne ah, suñu mbokk Abdoulahi Mbay mi xam ne moo nekk ci technique bi di ko jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu am rafet bu rafet bi muy def ba ngeen mën di ñu seetaan di dégg kàddu gi ci nam waree ñu koy jaajëfal bu baax naka noonu tamit di jaajëfal suñu mbokk Ah, oustaz Saïd Diallo moom tamit suñu sëriñ di ko jaajëfal bu baax a baax moom tamit di wax yàlla yàlla gën a barkeel yëngatu yi naka noonu di jaajëfal bu baax suñuy waajur yi nga xam ne tamit ñooñu teete ci liggéey bi bañ ñëw di jéem di nab nabi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di ñaan yàlla mu fayal ñu leen yiw di wax ne ku nekk nag yen ci kàddu gi seen mbokkam daara la Alioune Cissé di wax ne in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi ni yàllay sa buur doo sàkku yooneen sa soppe